bu dee da ngaa jël sa mindaan mu ñëw di sol ay yére sol tëneem di la liggéeyal ñu mu ñëw xëy disparaître yeyoo ci yàbbiwoo ci waxoo ci defoo ci enquête jaalewoo ko mais kooku ku la jàppul ku la jàppul jàppul ku reykat nit yow rek la mun a doon yow rek waa koñ bi yépp di jooy mindaan ba waa dëkk bi yëpp di jooy mindaan ba mindaan bi di la liggéeyal ñëpp xam ko te defoo ci communiqué jaale woo ko yóbbu woo ko ci rajo bi laajte woo ko mais kooku yow la <laughs> mais du keneen kooku yow la amul keneen donc Moussa Fall moo rey te ndax moo jiite gendarmerie moo rey ki nga xam ni mooy Didier Badji ci reyin bu ñaawa ñaawa ñaaw ba jonn yàlla tey amul enquête gendarmerie musul ubbi enquête waaye lu gën a garaaw mooy musu ko mettitlu lu gën a yéeme mooy musu ko naqarlu lu gën a doy mooy musu ci def communiqué dafa mel ni kenn deewul ci gendarmerie kenn jógewul ci gendarmerie teg gen du gendarme n'importe qui gendarme boo xam ne la enawaa la génnee am xam-xam nekk enquêteur kooku lañu rey reyin bu ñaaw monter lépp de toute pièce wut ay file wut ay file rey leen ba pare jël ay filet de pêche yóbbu ko ci ginnaaw grotte yi jël ay seen yére ay caleçon ak t-shirt teg ko fa ñëw woote ne ñii Moussa kii nga xam ne mooy Fulbert Sambou di xaritu ki nga xam ni mooy Didier Badji dañ doon napp ñoom ñaar ñëpp disparaître boobu rey nañ leen jël seeni yére jël seeni dàll jël seeni portable jël benn filet de pêche teg ci ginnaaw grotte bi ci géej ga ne fii lañ doon nappee ñoom ñaar ñëpp dee ñoom ñaar ñëpp dee ñaari nappkat gendarme ak militaire yu ñëw di napp ñoom ñaar ñëpp deewandoo seen portable yi foofu seen yére yi foofu seen dàll yi foofu seen seen lépp foofu ñu deewandoo daal kenn rëccul ñu tëmbal leen tëmbal ki nga xam ni mooy Fulbert Sambou diggu géej daggate ko par morso sànni ko ci diggu géej gi ñuy gis ay loxo buñ gisee Kër Masaar ay xaj di ko ŋànk ay tànk yuñ gisee feneen ay yiñ gisee ba nga xam ni bu ñu nee dañ koy recherche buñ ko génnee ba léegi suñ jonn yàlla tey amul autopsie kooku moom mooy ci beneen côté mooy Fulbert Sambou Fulbert Sambou nag moom militaire la Fulbert Sambou ak ki nga xam ne mooy Didier Badji dañoo bokk ay dëkk Casamance di ay xarit di ay doomu ndey di ay casase defandoo armé nekk ay gaayen kii jaar armée police kii jaar gendarmerie kii jaar armée Nous savons bu baax ñoom ñaar ñu gens qui bu ñu rayee Ba ji Fulbert dina fa des aussi militaire mais militaire ou enquêteur la enquête généraux ci biir armée bi ñu comme Moussa Fall daf autour de Ousmane Sonko détruire soit les disparaître

moom ak ñi ñew ñu ko mi ngi soloon ensemble blouson militaire je pense que bu bleu la bleu bleu am ñaari couleur bleu bleu bleu bleu foncé bleu ciel xawma mais mais ensemble blouson militaire la soloon il faisait aux abords de 21h 22h. bu mu génnee ci lañ ko né mu ñew wuy si mu leen ko may wuy ñu ko Moussa Fall Moussa Fall lu may heure bi Moussa Fall gaa yi jaay ko doole agressé ko dugal ko ci oto bi dóor ko ay pompe pompe à gaz dugal ko ci oto bi seeg moom ensemble blouson yooyu ñu ko buñ ko rayee ba pare ensemble blouson yooyu la ñu indi sànni ko ci gorot bi teg ca pêche jël portable am xam na bu mu génn génn naa portable bu muy génn génn naag portable ñu génn waale portable beeg yëpp teg donc loolu lépp ba suñ jonn yàlla tey armée bi musu ci def communiqué kon armée bi am na complicité ak gendarmerie armée bi bu dee gendarmerie musuñu def communiquer ci seen élément bi disparaître waa armée bi musuñu def communiqué ci seen élément bu disparaître musuñu ko jaale musuñu cee wax musuñu cee bind dañoo mel ni kenn deewu ci ñoom dañoo mel ni kenn disparaître ci ñoom tué nañ fa kenn déshonoré nañ ko mais musul am enquête musul am dara ba pare lu gën a garaaw nag ñu rey leen ba pare këppati seen salaire ne dañoo déserté këppati seen salaire seeni doom ba suñu jonn yàlla tey bu seen bàyyi gaañoo ñaari weer lañ ci teg ñetteelu weer ba suñu jonn yàlla tey doom yu fi fulbeer Fulbert Sambou bàyyi doom yu ci Didier Badji bàyyi kenn amu ci gisul salaire def na at ak genn wàll ba léegi suñu jonn yàlla tey gisuñu kooru ki nga xam ni mooy Didier Badji ñooñu nag kenn reyu leen ku dul les chefs de la gendarmerie et de l'armée mooy ki nga xam ne mooy Moussa Fall ak ki nga xam ni mooy Cheikh wàdd bi nga xam ne moom moo dem bàyyi place am Macky Sall jël ko jox ko mbay Cissé mais Mbaye Cissé bu muy ñëw fekk na Cheikh wàdd ak ki nga xam ni mooy Moussa Fall teg seeni dil rey Didier Badji ak Fulbert Sambou te loolu Moussa Fall wax na ci Cheikh wàdd pour mu jàppale ko mu mën a éliminer calmement ki nga xam ni mooy Fulbert Sambou te coow di jib baldu tàkk ba noonu la jabaram jabaru Didier Badji souffrir souffrir ci cancer ba dee ñu ngi noonu suul ko ca fatik yàlla na ko suñu borom yërëm te xaare ko àjjana ci souffrance ak njabootam boo xam ni seen rey nañ seen bàyyi waaye yoratuñ salaire jotatuñ salaire euh, di wax militaire yi gendarmerie maa ngi ñëw maa ngi ñëw nañ ma may tuuti rek xam naa ñi ngi ñu ngi woote fi di leen wax ni l'histoire de Boffa bayot a été dirigé et diligenté par l'équipe de Moussa Fall Il a dit imam Alin Badranda Ndao bu ci Moussa Fall parce qu'il avait une équipe très bien soudée Nous avons la bande à Moussa Fall Nous xam une bande à Moussa Fall dirigée par Abdou Menk la bande à Moussa Fall Nous avons une duñ dara ñoo ki nga Alin imam Alin Badara euh, imam Alim Badre Meng, je pense imam Alim Badre l'histoire de Bofa Bayot de imam Alim Badre l'affaire Abdul Aziz ndaw capitaine Touré ak yenen ak yenen, Ousmane Sonko Abdul Abdul Meng, juge Badjo Camara dil Moussa était toujours à côté ni la reyee ay doomu jambour nu doon wax militaire miré les ordres sont à exécuter sans murmurer patron légion ouest comme li def Abdoul Meng liguey bu salté bobu motax tax Macky Sall tëbal ki nga xamni moy Jean Baptiste Tine def ko muy général place bu mu occupé won en tant que patron légion ouest mu dem jox ko ki nga xamni moy mooy Abdou Meng jàpp capitaine Touré toroxal ko di ko waaj a rey ba capitaine Touré bindoon fii ne maa ngi nii di dem Touba mu topp capitaine Touré te da doon rey capitaine Touré moment boobu la gendarmerie nationale section de recherche tas ñëpp daw ñu bëri fii lañ ñëw Canada fii ñee jaar Amérique mu ne dee Moussa Fall ne dee dina rey capitaine Touré grand defal naa ko mu ne déet day rey capitaine Touré. ci A wala ci B teg ko choc ay nitu capitaine Touré yi newoon ci biir di ko wax ni defal attention dawal dawal dawal dawal ci la doon annoncé maa ngi daw tuubaa maa ngi dem nangam ak nangam loolu lépp Moussa Fall daf doon da rey bu Moussa demee ba dégg ni am na ñu nekk ci biir ñu muy liggéeyal ñuy yëgal capitaine ture ni ñoom ñi ngi ñëw ci la Moussa Fall wëlbati ko bugg a rey ñooñu it ñooñu it daw ñu ci bari ñëw nañ fii man gis naa ci kenn ku dëkk fii ci Sauvé. ku expliquer toute l'histoire ne bokkoon na ci ñu doon wax sax capitaine di gaayanam la ñu doon liggéeyandoo bu Moussa Fall yëgee ni mom sax mi ngi yëgal daf dafa jógoon pour ray ko donc Moussa Fall dalay ray sans comme ray la ak naan ndox mi la yemale donc bu Yalla deppulone carte gi Moussa Fall du Moussa tok di tojeul Ousmane Sonko ndax lu fi li bi bu tàkkee Moussa Fall la c'est un homme très sévère nee un briseur de carrière un criminel sans état d'âme lii nag man du Babacar Touré kéwéloo mooy wax lii man it du ma géwélu Moussa Fall ay gendarme ñoo may wax may liir mu ne Mollah